portable service la képp ku ñëw portable boobu soxna si moo ci dugal po moo ci dugal puisam xëy na portable am dafa amoon problème wala je sais pas moo ci dugal puisam moment boobu mais portable boobu portable service la moo tax mu bëri secret du portable ndaw si bu mu moom portable service de la gendarmerie la portable d'espionnage la portable d'espionnage même oto boobu noonu du oto gendarmerie la du otoom ndaw si sax mënul dawal oto moo man leen quatre la ñaari góor ñaari jigéen ndaw si mënul sax dawal oto te ñoom duñ fa toog ñetti fan yo oto ba nekkee foofu ñoom ndax ñooñu noonu nekkuñu fa dañuy changé ndaw si mi ngi ñëw ay côté une heure et fekk na Sonko génne di julli ci est-ce que xam ngeen ndaw si ba muy moom moom bu Sonko jógee ci jumaa ja di ñëw lay doog a gis ndaw si lay doog a gis Sonko est que xam ngeen loolu Sonko bu mu jógee ci jumaa ji dañuy bis la xale bi jigéen bi doo ko gis Sonko moom Sonko bu mu génnee di julli ji moom nekk gu fa dafa changé remplacé ñeneen remplacé ñu doog a ñëw donc xanaa portable boobu portable service la j'ai eu même les hautes autorités de nationale man moo laa mor gën les hautes autorités nationale du Sénégal j'ai woo nañ ma man kenn ci ñoom ponkal bu rëy ci auto ci gendarmerie billaahi wallahi wa taalaahi bakk alxuraanu ci affaire portable bi ci affaire portable bi donc du portable simple portable bi portable de service la képp ku ko ñëw portable boobu dafa bougé oto boobu ñetti fan ba jàpp ñeenti fan def lu fa jaar ci ay gendarme ak ay policier kenn xamul lu mu day dañuy remplaçante mel ni ñuy garde Ousmane Sonko dañ doon remplaçante bu ñuy demee ñii dem ñii dem ñii dem moo tax ndaw soosu ma ne la victime kese la dañ cee tombé du ci dara portable service la ku ci ñëw moom ngay yor ku ci ñëw moom ngay yor moom ngay rendre service les supérieurs les chefs moom ngay rendre service ponkal yi nekk ci état bi loolu moom moo tax donc ndaw soosu noonu. nekk fa suba ba ngoon bu Ousmane Sonko génnee di julli ndaw si nekk fa bi Ousmane Sonko di ñëw ca la ndaw si yore woon portable bi donc am na ñeneen ñu ko yore woon donc portable boobu jàpp ni la fa nekk du ay benn fan du ñaari fan du ñetti fan depuis ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon nekk ci barrière moo tax ma ne la portable bi lu doy waar la portable boo xoolee même li fi nekk information yi du ay information ñetti fan ñun ñu nekkoon ci barrière yi portable bi liñ doon bi soo Sonko génnee di doxantu tout ñu nekkoon ci barrière ak la mu toog ci këram renseignement yëpp mu ngi ci portable renseignement yëpp mi ngi ci portable donc encore une fois di leen waxal pour ngeen comprendre ñibbisi li ma leen wax nag takk leen ko téere lu ma leen wax takk leen ko téere barki alxuraan li ma xam ci réew mi bu ma ko waxoon dëkk bi seey seey laa la wax man xam nga ñam ñoom ñu ay muucaa mbuuj ñoom mun a yab mais ma ñàkk sama ndey man autorité yabuñu ma billaahi wallaahi bu fekkoon guddi gi ñëwaay woo ñu wax naa ko suba si ma ñàkk sama ndey ak sama baay jëleen di défendre sax dañuy dem rey ndey seen baay ak seen yaay te xam ne du ma seen morom ku ma yàq ku ma xamul rek moo ma yàq mais li may wax fa muy yëngal ak fa muy yegg ma ne la ku ma xamul rek moo may werante ma ñàkk sama nday seen autorité yi ngand nekk ci réew mi barki laa ilaha illallah ajuma lañ ne damaa julli ji ñëw billahi wallahi wa taalahi barki alquranul karim autorité yu gën a ngand ci réew mi dañ may woo di ñaan ak saraxoo ko ak yërëm tëb yàlla kon bu ma fenee yàlla na ma safara jahanama jël addiya kon yàlla bu ma gisanteeg Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam autorité yi gën a ngand ci Sénégal yi ngeen di wax nii dañ may woo sama téléphone billaahi wallaahi wa taalaahi di négocier di ñaan ak saraxu kenn yabu ma ci am na ñu ma ñemewul sax dañuy yóbbu ñeneen yónni ñeneen pour ñu wax ak man di wax nag Cheikh Sarr le commandant Cheikh jot naa yóbbanteem moom xam na man xam na le commandant Cheikh Sarr jot naa yóbbanteem jot naa yóbbanteem jot naa yóbbante seen njiit seen njiit yi jot naa seen yóbbante suis un citoyen, un combattant d'honneur pour la résistance. nu ma xeexee woon Abdoulaye Wade bu jóg laa fi xeex Macky ba du fi jógee keneen ku fi ñëwaat keneen defaat nañ di ngeen ma gisaat nii may xare ba daal bakkan laa di di ko tayle man Sénégal ma ñor keneen ñoru ko kon nekkuma ci détail dama ne ki nga xam ni mooy di wuyu moom bu muy ñëw Ousmane Sonko rek loolu bu muy ñëw moom Ousmane Sonko dem na julli ci fekk ñu def relais changé téléphone bi des fa ba mu ñëwee mu jël puisam dugal ci biir téléphone bi Ousmane Sonko bu muy ñëw mu gis ko ci information ndaw si dafa fit bi moo dëf ndaw si du kooru Ousmane Sonko moo ñëw boo jege ko ne ko da ngay enregistré mu ko noonu enregistré boobu nangu téléphone bi ba léegi Ousmane Sonko jegewul deux mètres nii trois mètres nii quatre mètres ndaw si garde corps kenn ci garde corps yi moo nangu téléphone bi ñuy werante foofu dugaloo ko xosewu ko dóoru ko bu maxu ko laalu ko ñuy werante mu ne ko lan moo nekk ci téléphone danga noo enregistré ndaw si naa ko noo enregistré ba coow li commencé riir la leen Ousmane Sonko ne ko indi téléphone mu indi téléphone mu ne ndaw si ak njëkk ak teraanga ne ko bi nga dindi lu nga enregistré ndaw si di ko xool ba léegi bouche bee Ousmane dugg ndànk ci biir kër gi yéeg ci kaw di yeggali liggéeyam ab nit moo ko fa fekk jëlaat téléphone bi ci moom ba léegi Ousmane ko waxul ci téléphone boobu. ndaw si rendre compte ndaw si rendre compte ki nga xam ni moom mooy ay supérieur am ay supérieur am ne ko waa ok léegi bouger leen ñu taal seen oto ku góoroo doon dawal ñu taal seen oto dem ba ñu taalee seen oto bouger Ousmane mi ngi ci kaw def na une heure Karim Diop Abdou Karim Diop waru waru fanaan Sénégal benn fan Abdou Karim Diop Abdou Karim Diop daraam waru fa toog Abdou Karim Diop daraam waru fa taxaw lépp Abdou Karim Diop tux yàmbaa rek lay def donc Abdou Karim Diop ci boppam moom lañu woo ne dafa am ndaw si ci renseignement généraux bu fa am ay coow ak Ousmane Sonko ci la Abdou Karim Diop ne leen jóg leen ngeen def nu mu gën a gaawee ngeen dem jëli ji Ousmane Sonko te Ousmane Sonko naa rien à voir de ba suñ jonn yàlla tey Ousmane Sonko jëlul téléphone jegewul ndaw si mu ne ko ndaw si ne ko ndaw si bu mu rendre compte dafa dañoo dañoo bougé ba ñu bougé ba ñu ñoom donc Abdou Karim Diop moo santaane ñu dem jàpp ji Ousmane Sonko moo ne c'est le moment ou jamais c'est le moment ou jamais loolu la Abdou Karim wax ne leen ne ne chef la gendarmerie nationale c'est le moment ou jamais allez le cueillir c'est le moment ou jamais allez le cueillir donc ils ont profité de l'occasion pour dem jëri Ousmane Sonko loolu la Abdou Karim wax wax chef bi nga xam ni moo rendre compte Karim Diop recueillir c'est le moment ou jamais chef bi jóg def seeni bataillon dem wàcc fa donc pour wax la ni Sonko laalul téléphone dóorul doomu aadama songul te plainte amul amul fenn fu plainte j'ai lu le procès verbal procès bi pro euh, lu ñu koy waxee j'ai lu le document de la gendarmerie et je vous parle de la document de la gendarmerie ndaw si elle a ci document bi que musul porter plainte musul taxaw ci police porter plainte c'est des informations de la gendarmerie c'est pas des informations de nulle part c'est de la gendarmerie je défie quiconque au nom d'Allah le Tout-Puissant parce que la ilaha illallah plainte amul benn plainte amul billahi te bu fekkee plainte am na man ak Abdou Karim bu fekkee am na ku ci fen yàlla la safara jël jël jël addiya bu fekkee ne man maa fen yàlla na mujj ci safara bu dee Abdou Karim Diop bi wax naan di fen naan bato bi daa paan ak yal na yàlla mu jële ko ci ci mu doon mattum safara bu dee man ak moom kenn noo ci fen ci barke Seydina Mohamed ci barke ajuma ji maa ngi ñaan ci yàlla laa la wax kàcc ni nga xam ni ñoom def nañ ko yàlla nañ ko gis yàlla nañ ko seen njaboot percuté na feeñ ci seen njaboot yàlla na leen yàlla xarak ci kaw suuf fii ak fu ñu bu fekkee man maa fen